Merci à, à, vous de m'avoir invité sur ce plateau de rendez-vous. Mm -hmm. Et voilà, Paul était là ce soir avec, euh, avec vous. ayca <laughs> mi ngi noonu li des li waxtu bi yëpp dinañ ko waxtaan ak moom bu ko defee ñu waxtaan ci actualité bi waxtaan ci musique bi euh, fi mu toll waxtaan yi tamit ci Covid bi ban impact la am ci ñoom ñi nga xamee ni surtout moom mi nga xam ne dafa daan produire lu bëri ci mhm. ci yenn zone yi donc yooyu yëpp nañ ko waxtaanee ci kanam tuuti mais en attendant dañuy dem basculer ci table maman xewal bu ko defee mu ñëw ci deuxième partie vente bi 88 628 89 90 wala 88 628 28 28 pour li nga xamante ni mooy xéwal bi 15000 francs ba 500000 francs bu ko defee ma yónnee leen seen ay xéwal par Wizall Money ngeen mën euh, def seen ay transactions maanaam jot ak di yónnee xaalis fépp ci Sénégal di mën a fay seen ay facture courant ak seen ay facture ndox wala di recharger seen ay carte rapido par Wizall Money te du leen dikkee dara maanaam c'est gratuit ak produit Uniparco yu ci mel ni euh, Pharmacare ak li nga xamante ni aussi mooy Perfect Men Pharmacare savon liquide antibactérien gel mag ak Ndaw ak les antimoustiques répulsifs 8 heures de temps après application et c'est à base de citron c'est apaisant 2 ans noonu c'est interdit aux enfants de moins ñi nga xamante aussi mooy femmes enceintes baax na lool ci période tàngaay bi nga xamante dafa bari ay yoo ak pharmacare savon antimicrobien bi nga xamante aussi am na herbal classique ak li nga xamante aussi mooy fraîche c'est dermatologiquement testé dafay dindi 99,9 pour cent et des bactéries xamante ni 3 en 1 la am na active stade ak li nga xamante aussi mooy after sport donc 3 en 1 bi maanaam gel bi dafay dem ci karaw dafay dem ci kanam ak li nga xamante aussi mooy ci sa yaram c'est énergisant et c'est revitalisant ak lait bi nga xamante c'est ultra hydratant 24 heures sur 24 mais eau de cologne bi nga xam dafa neex lool ci yaram ak ci sa ay yére boo ko defee 24 heures sur 24 xeb bi du dañ am na intense intam utile ak li nga xamante ni aussi mooy extrême voilà mu ngi noonu donc c'est énergisant et c'est revitalisant 88 628 89 90 wala 88 628 28 28 ci xéwal yi bu dee téléphone bi ubbi na rek ñu daal jël téléspectateur gi jox li nga xamante ni mooy seen xéwal. ayca avant 19 heures incha allah du ñàkk téléphone bi ubbi bu ko defee. ñu euh, baaxee leen xewal yi mais avant ñu dem ci poulet na fi mu mel ni am na mhm. information bu bu mujjee génn waaw Mouhamed site internet boobu la di Sénégal moo ko xam ne benn waay moo daal di daanu fële ca cité yi euh, mooy cité yi nga xamante ni ñoom ñoo jàkkaarloog cimetière yooyu la di Saint-Lazare moom nag dafa daanu foofu daal di ñàkk bakkanam waaye sapeur ba tey ñëwul ndax euh, sapeur yi euh, ku ne woo na leen waaye ba tey ñëwuñu noonee nag la waa service di d'hygiène nekkee sur les lieux pour nettoyer li nga xamante ni moom moo di fa euh, waaye soosule daanu ba ñàkk bakkanam alors jusqu'à présent nag wala ba bi information bi la di génn Euh, waa ji ma nga foofu sapeur yi woo nañ leen ba sonn mais euh, euh, ñëwuñu benn yoon Mouhamed. Mm-hmm. ayca donc loolu information la boo xam ne yoon la ñu koy ñu ñu jàllale ko. pour que mm-hmm. sapeur yi bu fekkee ñu ngi seetaan yi tamit ñu daw. Mm-hmm. secourir fii en face cité CPI en face Saint-Lazare. ayca ma bàyyi la ak voilà Paulette mm-hmm. moom je pense que euh, euh, musique am dafa baissé pratiquement. Mm-hmm. ñun ñëpp suñu enfance. Mm-hmm. maskimaal ñu ngi koy fàttaliku. mais depuis pratiquement on se on voit que Paulette dafa disparaître ci li nga xamante ni moom moo di euh, média yi lan moo ko waral. première pause bi ma amoon c'était par rapport à sama sama doom yi sama deux doom mais après ça il a eu l'album. et après l'album aussi on faisait dañ doon euh, liggéey déjà sama sama timidité sur scène naka laay mën a voilà reprendre on travaillait aussi la voix le mm-hmm. les spectacles avec musiciens nara liggéey ak musiciens. Mm-hmm. ak naka tamit la ñuy la ñuy génnewaat yeneen single. Mm-hmm. alors maintenant entre temps euh, euh, loolu yëpp ci la mais musique bi itam gisuñu benn yoon nga nga nga nga defaat leneen lu nga xamante ni xëy na marqué na téléspectateur wala mélomane yi pourquoi. Euh, parce que temps temps boobu dama nekkoon ci benn temps de on va dire formation un temps une temps un temps de formation euh, muy euh, man catégorie en tant que personne en tant qu'artiste et bon si si boobu lañ lañ lañ ñëw ñu ne il faut